Bienvenue dans votre maison de production. GP Gabon Production. Avec une équipe dynamique, un personnel professionnel, des lots de matériel de la nouvelle génération. ci ëtt bi nga xam ne ku xam du ma fekk naa ma loo fi wut ñuy fàttaliku maam ju baax maam joo xam ne ràññi ko woon na ci diine ràññi ko woon ci alquranul karim ràññi ko ci ak iraada sadiqa muy sëriñ Mor Assa Diatara radiallahu taala ñi ngi siyaare baax sunu wayjur sëriñ Haramin di jaare ci moom di nuyu mboolem njaboot gi teg ko ci loxoy jëwriñam sëriñ Moustapha Diatara di siyaare yi bu baax kilifa yi nga xam ne ñoom lañu cërale bis bi te ñu bokk lool ak sëriñ Mor Asta muy njabootug suñu maam almuridu saadiq sëriñ Sahib Mbakke radiyallahu an bokk ak sëriñ Mor Asta Ndey kon ñu ngi leen di ndokkeel di siyaare ko teg ci loxol sëriñ Mouhamadou Mansour suñu waajur ak mbooleem njaboot ji mu àndal ñëw wuy si woote bi di ndokkeel ñépp nag waaye di beral fi nuyu ak siyaar nag sëriñ Lay li mu doon ci kër gi xam nañ ko ñu koy siyaare bu baax siyaare boobu nag maa ngi koy teg ci loxol soxna Faati Lay di nuyu mbokk yëpp te di leen siyaar di ñaan mbooleem lu fi def ci bis bi ak li ko jiitu ci ay jëf yu baax yàlla na ko yàlla nangu te yàlla na ci jotale nga am ju tedd jooju tax ñu daje sëriñ Fallou wax na ko léegi tomb bi ñu sàkk woon ñu waxtaan ci mooy kilifteef ak war gu ñu war a tënk ci kilifteef nii mu ko waxee tomb bu am solo la ci jamono yëpp waaye rawatina sunu jamono ndax yàlla sunu borom subhanahu wa taala dindi nit ñi moom leen moo nangu ci ñoom ñoom ay kilifa yàlla gën a bañ ci àdduna mooy fétal nit koo xam ne day xàll yoonu boppam di dox na bëgg a doxi yàlla bëggu ci kenn ñi mu gën a wóolu sax da leen teg ci aw yoon mooy yonent yi alayhim salaatu wassalaam yonent yooyu nga xam ne ba mu leen tànnee boyalu leen da leen a jox ay téere ne wax leen nit ñi lii kon ñoom dañu ñëwoon rek di jottali kàddu yàlla subhaanahu wa moo taxoon yàlla waxoon ngir besa ne in alayka illa al balaaga yow jottalee la war jottali kon foofu wala kilifteef tàmbulee ginnaaw ñoom yonent yi ñoo nekkul seen kilifay bopp kon kenn du kilifa bopp doomu aadama kon dañ koo tënk ci am kilifa tey topp kilifa loolu mat naa xam lool sunu borom it ci alxuraan gis nañ ci aayaat yu baree bari yoo xam ne buñ ca delloo lañ cay fekk mooy topp leen seeni kilifa yaa ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp ab yonentam waaye topp seeni kilifa buñ demee ci jàngale yi Mawlaana Xadim njëkk moom sax yonent alayhi salaatu wasalaam moo njëkk santaane nit ñi di topp seeni kilifa kenn bañ a boy kenn bañ a fétal waxoon na ne aleykum bi same wa naa leen na ngeen di dégg ndigal di ko topp ak ku leen mën a jiite lu ñàkk-ñàkk solo ci seeni bët ginnaaw yàlla jiital na ko topp leen waxoon na it ni ñaari nit bu ñu àndee di tukki naam kenn ku nekk njiit la maanaam l'islam désordre lay ñoo ci faw daal nga xam ne nit ñi dañuy booy rek kenn koy nekk dafa bëgg mbir mi nosu am ñu jiite nekk ay responsable bu ëllëgee lu ñuy laaj ñu laaj leen am ñu ci topp tëggu ci ndigal moo tax mu toftale mbir yi ñëpp yi nekk ay sàmm kenn ku ne ci niveau ba nga nekk kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati tàmbalee ca imaam ñu kilifa gu mag ba ci ab xaadim ci biir kër njaatigéen kon kilifteef day loo xam ne dañ ko mooñaale diine bokk na ci jàngale Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim ba muy digal njaboot gi war a am kilifa waxoon na ne walaazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ilaa hudahu qaa'ida da ngeen am kilifa topp kon ñu xam ne kilifteef doonul mbir moo xam ne day soob nit ki rek mu wut ko comme neex moo ne amul kilifa déedéet nit ñi yàlla dañ bind ngir ñu nosu ci yoroon ak buum ba mu waxee ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu amoon na kilifteef ndax loolu tax mën a am am ñu jiitu am ñu topp waaye bu kenn ku ne bëggee beru yor sa yoonu bopp dara du sot moo tax faw ay njiit di am faw ñu topp njiit yi ngir mbir yi mën a sotti moo taxoon borom risaala ibn abi zayd al qayrawani radiyallahu anhu bi muy jàngalee ci bunt pas-pas bokk na ci yi mu jàpp woon ne farata waxoon na ci wa taatu li aimati l muslimina min wulaati umurihim wa ulamaihim bokk na ci li war jullit ñi topp seeni kilifa muy ñi méngoo seen mbir di borom xam-xam yi tënku ci xam-xam tënku ci diine loolu it ñun ñëpp war nañ koo xam xam ne du ndam ci ab jullit biñ ko nawee mu ne man awma kilifa maa yëlu sama bopp nit mën na ko wax rek waaye ku xam du wax loolu ndax li muy tekki mooy yow moto li nga doon ndax nit su matee lim doon day am kilifa déggal kilifa ndax ci ron kilifteef ci la jàmm mën a am saa bu mbooloo dajee ci barab kenn yiliful kenn dara du sotti sécurité du am jàmm du am ak dal du am ndax faaw am ku jiitu am ku ci tam misaal mi ci gën a jege mooy julli mu yàlla jàngale nga xam ne mooy ponk yi ponk lislam bi ci gëna am solo ginnaaw bu taw tawxid jàllee mooy julli yàlla tënkuñu ci am njiit wax ñuy njiit loolu liñ koy doyee mooy ngir ñu topp ko innama ju'ila al imaamu li utamma bi lu mu def def leen nga xam ne tey boo ko jiitoo sa julli yàqu dañuy wax ci fekk ne kàbbaru armal ak sëlmal waxuma la njëkk dafaay boo ko dafa doog sa ilimaan sa julli yàqu da ciy jàgg ne kon da ngaa war a topp ci ginnaawam néeg ba mu def nga def waaye bu defee nag nga def loolu misaal la ci am solo am solo njiit njiit loo xam ne bu jëfam yàqoo sa jëf yàqu boo ko jiitoo sa jëf yàqu boo tolloo moom sax sa jëf yàqu dañuy bëgg nga ne ci ginnaaw loolu misaal mu rëy la ci julli di ko joxe jaam bi di ko joxe juróomi yoon ci bis bi mooy ñu ngi koy xamal ne ko ndekkee moo droit ci di ber sa yoonu bopp ndax mooy tax jàmm am fekkoon tay dañ ne jàkkat yi ku dikk rek mën ngaa nekk si iliman mbooloo dañ fa dajee ku ne di wax ku ne sëkk si dara du dara kon société bi noonu la mel nit ñi dañuy war am kilifa di topp seen kilifa ndax euh, jote yi war a am diggante nit ñi kilifteef mooy tax mën a am ñi yilifee xam seeni masuliyaat nekk ci ki yilif xam masuliyaat kenn ko ne yem ci place waaye bu yi jaxasoo désordre mooy am kenn du jariñu ci des it euh, li tax yàlla bëgg nit ñi ànd di dund ci ron kilifteef lay mën a ame waaye euh, bu kenn yiliful kenn mën nañoo wax ne yenn ay ci àdduna mën a sotti yàlla daal bind nit ñi ngir ñu jàmm yàlla ak di dundal suuf loolu nag faaw ci ron ab nos boo xam ne day am ñu jiitu am ñu ca topp ci lay mën a amee bi ci des it jaamu yàlla la maanaam nit bu amee kilifa topp kilifaam mi ngi jaamu yàlla ndax yàlla moo ne ko atteon laa wa atteon rasul ulul amri ne bu kilifa gi defoon lu sax moom kenn du ko topp moom def na li war a def loolu bokk na ci li wane am solo kilifte wuute yi ci nit ñi yàlla moo bind nit ñi wuute kenn ku am lu bëgg am nu muy gisee bu ñu wootee ci penc mi kenn ku ne sañ na andi aw gisinam waaye nag kilifteef mooy mooy dog ci mbir mi bu dégloo gisee yëpp tànn wa shawirhum fil amr waaye fa ida azamta dafa tawakkal ala allah nga xam ne kon li ñu sant kilifa mooy dana diisoo ñëpp ñu war a diisool waaye bu nappee nag mooy jël décision fekk dajale na xalaat yi waaye bu diisoo bu bu kilifa amul kenn ku ne bëgg a mooy ci xalaatam dara du sant boo gisee ci kër sax su borom teg ko ci ay loxoom wax ne borom kër mooy yilif kër gi mooy dogal daa bëgg mbir yi nosu mboolem kër yi ngeen gis am ñeneen ñu fa am baat ñu du borom kër ga kër ga ci rëng-rëng lay dëkk kër benn baat la war a nekk ñu mën a nos loolu day wane am solo goo xam ne kilifteef am na ko mbokk yi bi ci des it ci ron kilifteef ci lañ mën a sàmm àq yi ak warteef yi ndax bu kilifteef amee mooy na ci kaw di tiim def li ko war waaye di sant nit ñu def leen war waaye nag taxaw it ba seeni àq ñu mën caa jot taxaw ba seeni i àq ñu mën loolu ci ron kilifteef rek la mën a amee te loolu yàlla ci mbaaxam ak xikmaam tënk ku sax ci gëm ko weddi maanaam képp ku ci tënku rek la muy jariñ mu jox loxo gis nga yi nga xam ne dañuy tënku ci kilifteef nos yëpp leen lu nekk am responsable bu ko yoree ci seen adduna seen mbir day dox na mu waree ndax wet googu nos nañ ca nañ ca war a nos waaye buñ ko nosul muy andi xëccoo ak kenn ku ne jàppal ak bàyyil jafe-jafe yooyu di am ci biir xeet bi ba kenn du ko mën a sàmm ci loolu la ñuy xamee ndekete kilifteef aw xeet mënuñ koo ñàkk xel yi lu muy rëy lu xam-xam bari bari faw mbooloo bi am bu ñu àndee am ñu jiite am ñu jiital ah yàlla ko bëgg noonu ci biir jullit ñi yàllaa ci ay yonent alayhi wasalaam ñu nekk njiit yi mën naa am ëpp ci xel mën naa am gënuñ ci ay juddu waaye ñoom la soob yàlla yàlla tànn leen jox leen ndigal ñoom ñu jot leen ndigal yooyu bañ fi bàyyi ko jox ko saxaaba yi doon alayhim ñooñu jógee fi jox ko borom xam-xam yi ñu di ko donnante ba mu agsi ci sunu mag ñu baax ñu rahmatullahi alayhim xeet wu yàlla bëggal jàmm dana la wutal kilifa bi nee na ku amul kilifa seytaane ndax ci dëgg-dëgg sax nit mënta ñàkk xanaa mu tànd kam kamu ka war a doon kilifaam nekk ko wala mu tànn keneen waaye faaw nga am ku la yilif dañ koy seetlu sax ci ak juróom boo ko seetloo mala yi bu ñu àndi dox sax am na ci benn boo xam ne mooy giiree ca des xar yeeg bay yeeg yëpp ñuy dox am na benn boo xam fu mu dugg yeneen dugg fa yàlla mu binde noonu bindee fii ñu am njiit topp ci ginnaaw njiit loolu loolu ñëpp dañ ko war a xam teg ko suñu kanam waaw mu des nag waaw njiit loolu mooy kan kan mooy njiit loolu njiit li nga xam daa dañ ko war a topp bu diglee ñu def bu teree ñu bàyyi donte la muy digle ak la muy tere wuute nag suñ bànneexu bakkan aleykum bi same wa taa saa bu ñu yilifee kilifteef googu daa mat a leeral xam ne farata la ci ab jurit mu topp kilifa dañuy wax sax ne mbir moo xam ne dafa dagan wala mu nekk lu ñu sopp bu ko kilifa diglee day nekk farata maanaam ndigal lu kilifay digle te kenn du ko def lenn rek la mooy moo yàlla mooy yàlla moom kenn ci nit ñi amul sañ-sañ di ko digal nañu ko def liannahu la taa'ata li maxluqin fi maasiyatillah waaye lu dul loolu doonte mbir mu ñu sib la fuqaha yi dañuy wax ne bu la ko sa kilifa digalee demal def ndax ndigalul kilifa day nekk waajib ci yow léegi nag li ma taxaw foofu mooy ginnaaw kilifa noonu la amee doole am sañ-sañ boobu ñëpp war na ci ginnaawam ndax moom ci xarit wax da waxoon ne na ngeen dégg ndigal dañ ko topp fil makra wal mansha bu dee ngir mu leen neex la mbaa mu leen bu ngeen lu ngeen sawar mbaa sawar leen te ginnaaw seen kilifa joxe na ndigal def leen ci ndigal ñu jàng it ci ndigalu Mawlana Cheikh Ahmadou Khadim mu wax ne laa tafaalu shay'an bi xayri idni fal idnu shartun fii qabooli shay'in bu kenn def dara ci loolu ndigal ndax ndigal charte la ngir ñu nangu la say jëf naa ko faral di misaal ne léeg-léeg ndeysaan nga gis koo xam day sonn lool ci lu baax jëf ci lu bari ba noppi am cee bàkkaar ndax du digal ak kenn def lu nur lu baax te du sa ndigal boo nappee doo ci am yëw day soxna yoo xam ne saan dañuy yëkkati xasiida di yëkkati tudd yàlla tudd yàlla màgg na am na njariñ lool waaye du seen moo tax bu ko defee ci kaw ay ji ay góor di ko dégg ay jàmbur lañ ci am ndax du seen ndigal kon mbir lu mu baax baax na nekk seen ndigal ngir doo ko def waaw léegi nag li ma ta wax kon mooy kilifa googu ñuy wax mooy kan kilifa gi nga xam ne bu diglee ñu def bu tere ñu bàyyi ku topp ndigalam jariñu ku mooy ndigalam loru ko la ci lislaam yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko jëkk jëmmal mooy kilifa gi nga xam ne ba ko yàlla indee daa wax ne lépp lu mu leen digal def leen lu mu leen tere bàyyi leen lépp lu mu leen digal def leen lu mu leen tere bàyyi leen loolu digal lu ma tale nga xam ne comme dañoo sant ñun ñun de salaam nee na def leen bul laaj lu tax ak lu muy jëriñ mbaa lu muy wàññi seen néew ji déggal te topp lu ci juddoo rek jiw la ndax ndigal bu jógee fu mu a jógee lor du ci bàyyi ko moom kon kilifa kilifa mooy ndawal yàlla li wàcc suuf yonent yàlla Muhammad moom mujj wàcc yonent yi ba mu fi jógee saxaaba yi ñoo ko wut ci loolu nekk kilifa yu jullit ñi di jiite nit ñi ci xam nañ ci bu wér na lislaam yonent yàlla Muhammad moo doon ilimaani jàkk ji moo doon chef de guerre moo doon jiite négociation diggante ak noon ya moo doon yëwénal diggante yi bu la amee maanaam moo doon kilifa gën a ci kaw ñëpp jëm ñëpp lu mës a lëj ci moom lañ koy lijjantee ku ñëw ginnaawam nag moom nga wuutu ci loolu ba saxaaba yi demee taabiyoon yi dem boroom xam-xam yi ñëw boroom xam yooyu ñëw wuutu loolu boole diine ak àdduna loolu mooy li normal diine ak àdduna ndax du ñaari mbir yu taqalikoo am lu ne am lu ne yàlla mi ñu moom andi ñuy àdduna moo ñu andil diine ngir mu giide ñu nga xam ne ci biir àdduna diine mooñ ci womal mbir mu taxaw mu ne dañ lay wax ne lu ci diine wax bu ne jëmal ndeyjoor nga jëm ndeyjoor bu ne càmmoñ jëmal càmmoñ bu ne taxawal nga taxaw kon diine mooy jiite àdduna moo tax xakim ba waxoon ne ma ahsana diina wa dunya ila tamaa waaye nag la barakallahu fi dunya bi la diine la barakallahu fi dunya bi la diine ba ñu yàlla nattoon na lañ dox ba jëmmi jamono ñu ñëw xàjjale diine ak àdduna di wax faslu diini anit dunia am ñu tudde ay kilifay diine am ñu tudde ay kilifay àdduna nga xam ne kilifteef bi ñu doon wax nii léegi dajalootul seen loxo te lislaam kilifteef ji ñu wax ci benn loxo lay nekk mooy ilimaani jàkk ja boo demee ci tribunal ba ka fa nekk moo ko fa teg bu ab jàmmaar loo amoon ñu war a lijjanti suñu mbéy suñuy noonu moom ngay fekk ci kanam mbàndawam yu lëj yëpp moo koy lijjanti ci turu yàlla di wommat nit ñi li yàlla wax kilifteef googu mënuñ koo ñàkk ci àdduna ku ko mas a ñàkk rek sa dund karaj na ndax wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka loolu ñu ko xel mbooleem jafe-jafe yi am ci àdduna li ci jiitu teg ñu ko mooy dañoo xàjjale diine àdduna parce que diine euh, mooy wommat àdduna àdduna ji amul diine ak lëndëm la dañuy làmbatu di tañaxu di falang-falangi ba xëy dem rek luñ fi tër buñ doxee tuuti gis ni baaxul kenn rek moo mën a tërala nit ñi lu leen amal njariñ tey démb ak tey ëllëg mu yàlla suñu borom ndax moom rek moo ñu xam moo ñu xam xam suñu ëllëg xam lenn lu nekk la ñuy suñu wàccee loolu tàmbale loolu kon bu ñu wax tënku ci ci ak kilifteef mooy kilifteef bu mat la koo xam day ëmb diine ëmb àdduna loolu moom faaw ñu bàyyi ko xel war a dox jëm ci it nag jàpp ne li ñu nekk ab nattu la ab jaam na bu nekkee ci nattu day ñaan yàlla di muñ waaye ñaan yàlla yàlla gën a kenn ko waaye saa boo gërëmee nattu bi yam ci fasoo yéene mu soppi ko loolu amul solo xaw ñu jéem boole diine jëkk àdduna bi ba booba nag kilifa fi yor diine ji ñu war a topp seeni ndigal ko lépp lu ñu digal ci diine nañ jàpp ne ci yàlla la bàyyi ko ndax yàlla moo ñu sant ateewu allah wa ateewu rasulu wala minkum boroom xam-xam yi Ibrahima salaam noonu na ñoo wuutu yonente yi waxoon na alambiyaaw lam yuwarrisu dinaaran wala dirhama wa innama warrasul ilma xam-xam lañ fi bàyyi ku jot xam-xam booba yore ko di ko di ko jëfal yaa wuutu yonente yi moo tax fuqahaa yi dañuy wax ne euh, ulil amri mooy al ulama al aamiluun al aamiruuna bil maaruf wan nahy wan ñooñ ñooy ñi war a topp seen ndigal ñoom it ndigal dañ koy jël ci seen borom jaare ko ci alxuraan ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku saa bu diglee dañu war a digal bul wax mukk lu tax sëriñ bi digle ko lu mu ci jublu sa yoon nekk yow loolu war topp ndigal bu ca nekkee du loolu lor kon ki digle te warut a digle ki te te lam digle du noonu loolu mbirama waaye yow moom dañ laa sant nga tëdd ci ndigal kon saa sa kilifa taxawee digal dafal ndigal bul mecciti li ñu boole ñun tey mooy ak mag ñi ñuy tey seen irada saadixa bu dëggum loolu nag la ko jëmmaloon mooy tënku ci ndigal kenn ci ñoom mësta daf lu wuteeg ndigal foofu foo leen fekk ndigal lañ fa bàyyi suñuy xëy suñuy gont seen njaboot sax yëlifuñu leen seen njaboot sax yëlifuñu leen seen kilifa mooy yëlif njaboot gi mooy leen jëmee fu ñu bëgg ñu jëm fa kilifteef gu mat googu am yàlla taw dafa leen taw fii xanaa ñu daje kilifa gu mat kilifa mu wuuf leen yar leen yee leen jamono ju xat jamono ju mett yoo xam nattu bii fekk na nekk ne waaye teewut nag sëriñ bi moom jëmmal diine ci njabootam mën nañoo wax ne fi mu doon dund l'islam rek boo fa doon daw te loolu ku ne mën na ci sa bopp sa kem kàttan li leen islam digal lan ca man bu ci déglu keneen te kilifa yi ñu am ci loolu la ñuy wax waxtu wane ñi ñuy defaral ay daara di ñu tabaxal ay jàmmukaay yàlla di ñu wutul ay tool gi ñu liggéey kon bu ñuy jàng bu ñuy jaamu yàlla ginnaaw bu jàngee di liggéey mooy ñu ngi ci aw yoon di ñu woo it ci participer ci njariñul mbooloo nga gis ne kilifa yi naka jekk saa bu ñu wootee ab liggéey maslaha am ma lay doon liggéey boo xam ne bu noppee mbooloo bi ñëw ci jariñu waaye duñ wooteel seen bopp bi ci des am na nit koo xam ne soo ko bu boppam du jariñu boobu waaye ba wootee néegu yàlla di tabaxlu daara kaay liggéey ji mu def ci participer ji mu nekk aw yu ci moom nit ñu mel noonu kilifteef yooyu nañ bàyyi nañ ko bàyyi xel xam ne doole la saa bu mbooloo àndee am kilifa di déglu kàddoom am nañ doole ñoo xam ne kenn mën leen a jaar sàkk saa bu nit ñi tàggale ko nag néew doole te mbooleem ñi bëgg not nit ñi bokk na ci seen i pexe tasaare nit ñi fexe ba kenn du yilif kenn kenn du am doole nit bu yilifut kenn kenn yilifu ko mu beru fenn biis bi ñu ko bëggee jekku jàpp ci nii màcc ne benn ñu xëpp ko ba ñu xupp ko ba jàpp waaye soo nekkee ci yoon mbooloo am kilifteef kilifteef gi xam fi muy teg tànkam ndax xaayit la ginnaaw bu nekkee aabid ndax sëriñ ñaar yooyu la ñu waxoon na ngeen taqoog bu nekk xaayit ab jaamukatu yàlla mooy kon xam na yàlla ndax yàlla mu ne su koo jaamu te xamu ko kon ku xam yàlla ba tënku ci xam nga mooy aabid waaye nag yemalewu ko ci boppam ku dikk dala ci womal loolu mooy benn pàcc bi kon mooy kilifa génn bi ñu yàlla natoo nag ñu am ñeneen ñu tudd kilifa àdduna am na mbir yoo xam ne ci àdduna maslaha am la saa buñ ko diglee dañ ko war a def ndax njariñ ñëpp ci nekk masalan ci misaal rek code la route dañ ko war a respecté ndax lan day sàmm dundu nit ñi ba yoon wi ñu mën koo bokk kenn du loolu kon yooyu ñuy digle bu ñu jàpp rek ne dama koy xët saa yu wanee xëy jàppal ne ndigal la ndax ñëpp dañ koo teg ci turu mbooloo mi ngir aar mbooloo mi naka noonu yëpp yu mel noonu nga xam ne lépp luñ tër la waaye ngir ñëpp la ngir jariñ nit ñi mbaa musal leen ci ay lor su boobaa donte ki ko teg du kilifa ak diine waaye nag maslaha am moo ci nekk te maslaha am ñëpp dañ ko war ndax àdduna da ci am loo xam ne nit ñee ko bokk ak mi dee fi sax la bëgg a wax maanaam bii lépp luñ teg lu koy sàmm ñëpp ci war a jàpp ndax ñun ak mala yi ak picc yi yi ñoo ko bokk bu yàqoo ñëppay doon loolu yàlla dañoo sant ñu sàmm ko kon loi teg. ngir sàmm loolu dañ ko war a sàmm lépp mbooloo buñ teg ngir sàmm njariñul mbooloo bi dañ ko war a sàmm boobaa ñëpp ci maase war ko sàmm kenn waru ko xëtt ni ki nga xam ne lu ñu diine digal dañ ko war a def ñaar yooyu faw ñu di leen boole fexe ba ci diine ji moom suñu kilifay diine ñooy diglee ka tare ñun murit rawatina dañ ñëw tënk ci bul def te amoo ndigal waaye adduna ji nag ñi yàlla dénk àdduna ñu tëral loo xam ne ngir ñëpp la ndax jàmm mën a am liñ bokk ñu mën koo bokk ndax ñoo bokk environnement bi bokk koo mi ne ci réew mi bokk marafiq amma yi nga xam ne ci la ñuy jariñu suñ nee nañ ko tërale nii masalan ndox mi nañ ko indi kenn ku ne na participer nangam ngir ñëpp mën a naan mën a loolu boobaa participation day nekk lu war tëli bi kuy dox na nga joxe wetu ndeyjoor ndax yoon yu mën a lii ba kenn ku ne xam fi nga boo wéetee boo wéet ko da ko war a sàmm ci yooyu kilifteef fi daa war a nekk lu mat a même boo koy def te tënku ci yéene ci def ndigal da ngay am da ngay ko jaamu yàlla ndax yooyu ci biir jaamu yàlla la ko kon mbokk yi kilifteef yooyu dañu war a sàmm mu des nag natt yi ñu yàlla nattoo mooy suñ demee ba jëmmi jamono kilifa ñëw te matul kilifa moom mooy musiba mi gën a gën ci musiba yi kilifa bu matul kilifa képp ku ko yàlla nattoo xamal ne am nga natt bu rëy ndax mucc ci moo jafe te it warisul toog di seetaan te it warisu ko saafara lu yées loolu loolu ma bàyyi xel dañuy wax ne kilifa nu mu mën a mel booy faj dëng-dëng ga bu ko fajee lu yées la ngay bañ bu ko fajee lu yées la ngay bañ ma xadis yi wax ne ku leen mën a yilif topp leen ko fii ak dëgër mooy yàlla mbaa boog ak kéefal gu fës am yooyu mat na di bàyyi xel ci bu jamono dëngee nii te nag dox ci jëm koo saafara ndax kilifteef moom dinaa mëni su ko ñàkk kii riife bu teguwul ci yoon rek àdduna du jàll ndax jafe-jafe bi mu jur mooy bu teguwul ci yoon ñi mu yilif mënuñoo tegu ci yoon ndax nag xakim ba waxoon na ne kër bu borom kër bi yore ay ndënd tëgg bu kenn yéemu ci gone yëpp day fecc kat kon saa bu njiit melut ni war a mel loolu li muy jur mooy njaboot bi duñ mel ni war a mel loolu muy musiba bi gën a rëy mu dal muy dal am réew moo tax tànn kilifa di lu am solo ñu war koy bàyyi xel baax a baax war ci sóor yu bari te la ci jiitu nag mooy ko ak diine saa ñu tànn kilifa la jiitu ci lu ci war a sóor mbokk yi mooy jikko ak diine nit bu amee ko am diine jag na lam xamut mën nañ ko jaay dimbali waaye bu amul jikko amul diine leneen lu mën a am it amul njariñ yi xew yépp ñàkk diine ak ñàkk jikko moo ko faral waaye saa bu nit ñi amee jikko ju rafet kenn du leen gis ci barab bu lay tuumaat saa bu nit amee diine ju rafet du fekk kuy tooñ mu di ko làq du fekk lu dul noonu mu di ko jéem a aar du défendre ab yàqkat du défendre kuy tooñ du far ku farlu ndax dana bàyyi xel yàlla du ko bind moom bu beru woon tëju ci néegam lu mën a rafet dana xam ne yàlla nga koy gis dana xalaat ne bis dana taxaw ci kanam yàlla mu ne ko jiitaloon naa la ana noo doon doxal bu fekkee nag dañoo jàpp rek ni mbir yi àdduna la yem ku mën a nax nit ñi boo ko naxee bu jeexee jeex na ku mën a éliminer nit boo ko éliminer ba yëlif ko jeex na mbokk yi mbir yemul foofu bokk na ci nit day faatu ñu la diw yóbbu nañ ko ci maswaabu laxir yóbbu nañ ko këram gu mujj ba mbokk yi du kër gu mujj loolu ñi gëmul yàlla ñoo koy wax al maswal axir imma jannatun wa imma naar maanaam kër gu mujj mooy nga dem ëllëg tàbbi aljanna wala nga yóbbu sawar wala dem wala mu dem sawar loolu mooy kër gu mujj waaye bàmmeel ab jaarukaay rek la ñi gëmul yàlla nag jàpp nañ ne ku dee jeexal nga ñooy wax dernière demeure loolu jur waru ko wax léegi nag ki jàpp loolu moom jàpp na ne ku mën a jekku ci àdduna na ko jekkari du mujj fenn bu jeexee jeex na waaye bu ñu fàtt bu ñu teewloo ci suñu kanam yow ma tuub la saraay njiit li bu taxawee ci kanamam xam ne yow ma xiyaam bàyyi xel la saytu am waxoon nee na bu ak gileem réeroon ci àll bi ma gëm ne bu yowal xaamee man man Omar lañ koy bu doon dox ba damm ci yoon wi man la ñuy wax lu tax fakkoo yoon wi ba gileem gi di fi damm loolu lañ soxla ci nit njiit loo xam ne day mat xam ne yàlla moo ne ci kanamam lii ngay def jaamu yàlla la moo ko jiite jaamu yàlla la bu rafetee tuyaaba la cëri wilaaya yi nit ñi am nekk waliyu yàlla nit ki mën na ko am ci liggéeyal nit ñi ci wàllu adduna waaye na fekk mu sellal na fekk mu rafetal na jiital yàlla bul noggatu nit bul nax nit bul lëntal bul njóot njaaj lépp la def na leer xam ne yàlla nga ko gis ndax yow ma taw la saraay bis penc mooy bis bi ñuy wuññi secret yi gis yi nit ñi doon doxee di ko nëbbu yëpp ak loo ci mën a jublu yomal xiyaam cër bi ko doon daf mooy nett yàlla biiru kon loolu faw ñu teg ko ci suñu kanam looy di jiite it ak lu mu néew néew lu mu rëy rëy na bàyyi xel ne kullukum raay loolu ñëpp ko war a teg suñu kanam bis boo jàppee ne mbir mi sama pexe sama xam-xam mën na ma lëntal ba jël ci lu jëluwut du mujj fenn booba gëmoo yàlla ndax bu sa gëm yàlla dëgërul danga xam ne dana mujj fen ak tooñ bu rees tooñ bu rees mukk saa boo tooñee nit sa moroom jàmm wala nga tooñ yàlla sa borom dana la taxaw ci kanam jàmm ñëpp teew ñu njëkk ña ñi mujj ñi yàlla di lijjanti loolu ñëpp di gis loolu kum ne ci kanamam mu di ko xool buñ la woowoon sax léeg-léeg ci yenn yi dangay ngay daw moo tax yu salaam ci ñor nga xam nga benn waaye ñëw ne ko yontu bi fal waaye lii barab sàngam mu ne ko sunu mbir mii duñ ko dénk ku koy laaj mbooloo mi ñooy xool ba xam na yow yaayoo nga ko ñu jiital la waaye képp ku jëkk-jëkk di jiital leen mën naa nangam yontu bi nee na sunu mbir mii duñ ko jox ku koy laaj waaye nag nit dana ci barab ay mbokkam gis ne ko jub la ku sérée la ñu dénk ko yontu yàlla Yuusuf moo waxoon ne ij'alni ala xazaa'inil ardi ndax lan ni xafisun alim parce que ku sérieux la te compétent ñaar yooyu lañu soxla ci ci ci njiit na sérieux na compétent na am compétence ci liñ koy defaloo man ko man ko rafet boo xam ne dana jëme mbir yi kanam waaye nag na doon ku sérieux diine di ko wommat du nax nit du lëntal du farfarloo kenn du ko mën a yóbbaale ci lu dëgg bi ci sit ba doom jay wax yonent yàlla Shuayb wala kum doon eh, inna xayra man istaajarta al qawiyul amin ba tey moo ñaari ku jub te am kafaa bu ñuy dénk nañ dénk ko kon gis nga jub moo jiitu moo tax mbir yi buñ bëggee mu tegu ci woon faaw ñu tegu ci loxo ñu jub loolu nag responsabilité ñëpp la rawatina sëriñ si nga xam ne ñoo doon diine xam diine liggéeyal diine ba yàlla jox leen ceeb nañ yar njaboot gi jàngal leen ba li kilifa yi di wax ñu dem ba nga xam ne médecin ba jiite hôpital ba jumaa dafa nekk bu ajuma mooy xutba nit ñi bu wàccee dem opéré ji bis bu bis bu amee njuñ njaay yëpp dana fi jeex ndax kooku dana bàyyi xel yàlla buñ taxaw di wax ni yaa ibadallah na dana ci jiital boppam waaye nit ku xamul yàlla nag xamu ko seen bokk yi man la shay'an ada nit lu mu réere bañ am na ñoo xam ne boo gisee seen i tasarufaat da nga jàpp dañoo bañ yàlla dañoo xamul yàlla yaruñ leen ci yàlla ci àdduna la ñeen yar gëm loolu lañ leen ne leen tekki mooy nga am alal ju bari say bien bari nit ñi dala dégg fu ne war nga yor mbooloo mënul jeex Sëriñ Tuubaa noon na tekki mooy jub ba muy yi laa tastaxiru anil hudaa la di wuti ne laaj leen waaw doom ji loo ci bëgg dama bëgg mu tekki sëñ Tuubaa dañ tekki mooy jub ndax boo xasee jub yàlla moom moo programme say mbir li war ci yow yàlla dana koy def li nga ameel yàlla na ci ay taxawaay yaa ko mën a def boo jubul doo ko mën moo tax mu ne seen soxla ne seen bëgg a jub loolu mooy wajur wu ne sa doom ji nga yar buñ ne daa bëgg a tekki buñ ne tekki mooy lan mooy doom ji jub ku jub tekki na ndax mooy ku xam li mu war a xam mel ni mu war a mel di def lim war a def yooyu ku ko def da am li nga war a lii nii ku xam li war a xam mel ni mu war a mel def li mu war a def faw moom li mu war a am ñun nag dañuy bàyyi yëpp am am bi la ñuy jiital te am am yàlla noppi rek doomu aadama juddoo yàlla la muy am ci àdduna ci cëri àdduna cëri àllaaxira cëri cëri àdduna la bëgg wax ci alal wala ci daraja yàlla noppi na ci bu yàgg maanaam bu fu mu mën a nekk dana ci jot moo taxoon xadis bu am solo ñu ko bàyyi xel ñépp war ko bàyyi xel rawatina ñu yëngu ci mbiri àdduna daa waxoon ne nangeen bàyyi xel yàlla te rafetal li ngeen di wut ku ci wut dara ragalal yàlla te rafetal ittaqullaha wa ajminu fi talab am na wutu ñaaw di ger nit ñi di nax nit ñi di leen digloo nërul mënoo loolu sàpp bu ñaaw la bu metti metti rek looy dig nit ñi dafa na fekk muy loo man na fekk muy loo nar li wuutale nit ñi ngir yëpp dañ leen di dikk loo xam ne mënuñ ko naruñ ko bañ demee ba am lañ bëgg fàtte ko ñoom it ñu taxaw te mu jëleen ko fàtte lépp ngeen xuloo kon ittaqullaha wa ajmilu fi talab ndax lan fa inna nafsan lan tamuut xatta tastakmila risqaha bakkan du fàtte wërsëgam jeexul loolu ku ko xam da ngay noppalu nit bu ko xamee day noppalu léegi nag yooyu noonu ci lañ war a yar nit ba kilifa yi jiite bu ëllëgee yooyu ne ci seen kanam boobaa soñ yeeg police yeeg yëpp du ko jaral ndax nit day am damiram mooy nekk police am bala ko kenn kar di ko yedd yàlla lay njëkk bàyyi xel sëñ Abdou Khadir Mbacké roog dina ànd oto bu assurance bi mataan a jeex bu xëyal daw koo xam ne maanaam tey bu otoom dañoo ne kenn baal ko waaye gis na ne yoon wi nee na li daa war a am kayit wi moom day gëm ne xëtt ndigal la te moom du xëtt ndigal loolu taqwa la bu nit ñi nekkoon foofu kenn du ñu daay ay ay ay kayit falsifié ay kayit léegi nag dëkk bi lépp falsifié lépp lañuy ñuy falsifié day gis koo xam ne day jékki-jékki am diplôme bu rëy te kenn mësu koo gis ci école bi may diplôme boobu yu mel noonu mbokk yi nañ ko bàyyi xam ne lu mbir yi métti métti kilifteef moom dañ ko war a topp waaye nag kilifteef daa war a mat kilifteef hmm. kilifa daa mat kilifa soo matul kilifa mu indi jafe-jafe waaye su xasee mat kilifa jaar fi mu jaar xëy na ñëpp jub du yomb waaye ñëpp buñ jubee rek mbiri jaar yoon ndax dañu yóbbaale ñi ci des te ku bëgg a dëng sax doom foo jaar waaye nag manque kilifa day tax nit ñi amul lay ci mën a xëtt ndigal te loolu mu solo moo tax faw ñu bàyyi xel yooyu bi ci des képp ku yàlla jiital na xam ne jiital a doy na ndam teg la ci kanam nit ñi doy na ndam fexeel bu rafetal bu ëllëgee man nga ca am na yoo xam ne fa fa ñu gaa ñu baax ñi dëkk ngay dëkk ci kaw nga rafetal ko jox ni ak ni seen ak fexe ba ak maanu daj fexe ba ak maanu daj bu kenn tooñ kenn bu kenn njuñ njaay alal jàmbur bu kenn jël yi fi jàmbur loolu mën na bàyyi xel waaw loolu nañ ko nañ ko teg ci suñu kanam xam ne kilifteef mu ngi noonu lu ñu war a sàmm la lu ñu war a jàpp la waaye nag nañ fexe ba kilifa yi di mat lii tax kilifa nag mooy diine kon système senegal Sénégal bii la ci jiitu woon njàng mi diine ko waroon la bañ ci génnee diine am ay nit ñoo xam ne ma sama dégg koo xam ne jëwriñ la woon yàgg na ginnaaw ramadan daa jot mel na mbokkam jógee jolof ñëw seet si ko ndox mu ne ko man damaa war mu ne ko a ngi ci seen yëfu xale te kooka ministre la république la boobu am na lu ëpp juróom-ñaar bu jógee juróom-ñaar fukki at jàpp ne xale la ñooñu mbokk yi buñ jiitee am réew ndax réew mi dara jëm kanam il faut ñu bàyyi xel nit ñi diine mooy womale diine mooy tax ñu mën a tegu ci kanam nit ñi kon lu ñuy def nañ ci sóor diine bu diine tegoo ci yoon xam-xam tegu ca kooku boo ko jiitalee yàlla mën naa am léegi nag fii ñu àgg ci loola yar moo fi des ak tàggat ñi ci gën a placé nag parce que dañ koo yàq géew politique ba ñu jàpp ne ku baax waru ca bokk politique bokk na ci liñ gën a mën a gaaw àggale ci yàlla boo ko rafetalee Omar ibn Abdul Aziz li am ci diir lu ko may diir bu gàtt la am ci xilaafa gi waaye nos ko teg ko ci yoon ba tey léegi bu ñu lim ci xulafaa juróom la ñuy wax aw Abubakar Omar Ousmane Ali Omar lañ cee teg ibn Abdul Aziz te topp ca de am na ñu dox ci diggante bi ay kilifaam waaye moo séddee ba tax aw turam des ci lislaam bu ñuy wax mbaax di tudd gouvernance bu baax di dellu ci Omar ibn Abdul Aziz ñooñu ñooy suñu royukaay mbokk wa jaayante lépp lu ñuy wooyee ak mbokk diggam ak sëriñ bi mu xam ne bu ko doxalee diggam ak sëriñ bi fi ñu yem daal mooy jàmm nga fanaane jàmm nga yendoo lii la ko dimbalee lii maa la ko dimbale mu xam ne sëriñ bi pas-pas la woote mu ñëw ànd ak sëriñ bi ci loolu sëñ bi di ko liggéeyloo ci lu koy mën a jariñ xam nga sëñ bi du nax kenn moom ñim àndal ñëpp teg na leen ci yoon woo xam ne man nañ cee jaare ba mucc ndax lim njëkk a def mooy lépp luy waral ak rëy li nga xam ne moo mën a sànk doomu aadama muy ak rëy moom lay njëkk a dindi ceew ndax sëñ tafsir euh, sëñ sayin mbàkke fokk na fekk na sëñ bi xumaag nga xam ne sëñ bi la ko fa jiitoo mat na at moo xam ni sëñ bee ko jiitoo xuma at waaye fekk na ko fa bi sëñ bi jógee ci xuma di ñibbisi mooy bi mu jógee gànnaar gànnaar di ñibbisi moo ànd nag moom ñëw ci yeen jolof nekk ak sëñ bi ci yeen jolof ba sëñ bi jógee fii ñu koy ñu koy exilé mu jàllaat jurbel te xaw ma jabri yëpp yi mu ànd nag moom dem jurbel sëriñ bi ne ko aw yoon daal a ngi nii kër gi bu fa kenn marati man war nga wi may jëfandikoo sëriñ bi lu muy jëfandikoo ci boppam képp ku mu wóolu ci nga di ko defal kooku set wicc nga ku yàlla jàppale nga ku yàlla dimbali nga mu ne ko li nga xam ne moo war ci sama digganteeg loolu dee ma ko toppatoo ba pare nag yàlla may ko ci xasaayid yi xam nga dégg nga ñuy nettali ne àgg na ci xasaayid yi mën na ko manin woo xam ne yàlla may ko ci mu àgg ci martaba yoo xam ne upp na ci setala muy bax nga xam ne setala la jël upp ci xasaayit gu mu yoroon muy bax setala gi di bax sëñ bi ne ko lii saayit maa la ko daax waaye nag jaarale ko fi ma la ko jaarale léegi léegi sëriñ bi delsiwaat gi muy delsiwaat ci li nga xam ne mooy nite ci moom ndax naari gànnaar yëpp tagg nañ ko waaye musu cee wax ne kii moom a tagg am na ci ko ne sax lim laa takunu nabiyan umma mab'athuhu yuha ilayhi bi anba'in wa axbaar yi lu la tey doon ab yonent ñu lay tagg mu ne ko atrayta yow moom jay nga moom man du moom yonent abdullahi wa xadimu rasul nga xam ne sëñ bi ne ko nag léegi dangay delluwaat ci nit gi yàlla may na la ko jaaree nga ko sama xasida ba yàlla may la ko waaye del taal jël setala teg ci baxal ndox mi sot seggal ma indil ma waaye bul bul bul defati lii ah, waaw nga xam ni sëriñ bi ma sa koo laaj ne ko ñaata xës di nga mokkal mu ne ko mën na maa toog timis di tere ba timis di ñëwaat xam nga loolu lu doy waar kooku kon demoon na ba turu yàlla ak salaatu ala nabi fees dal ci yaram wi ba lu mu ci bëgg a sottal mën na ko cee sottal te yéen xam ngeen sëriñ bi wax na ni salaatu ala nabi boo demoon ba gisatoo kenn ku la tërbiyee amutoo kenn ku la tërbiyee ci ko suuf sëñ bi ne na salaatu ala nabi doy na sa doy na say ku te sëñ bi salaatu yi nga xam ne moo ko tëggal boppam ci loxoom li salaatu yi foor foor bi ko sëñ Tuubaa day gën a fooraat day amaat geneen foorte bu ci amaat sëñ bi moo mel noonu ndax nit ku ne nam toll ci yàlla wala kullin darajaatun mimmaa amilu nga xam ni ba sëñ bi ne ko Saïd mu ne ko Mbàkke mu ne ko gërëm naa la yonent bi gërëm na la sunu borom subhaanahu wa taala gërëm na la te malaayikatul muqarraboon dañu roy ci yow waaw tax ndax malaayikatul muqarraboon yi lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaayikatul muqarraboon malaayikatul muqarraboon yàlla nee na du rëy réelu ngir jaamu ma ndax xam nañ ma masih mii du rëy réelu ngir jaamu ma ndax xam na ma léegi nag jaamu yàlla nag Saïd sëriñ sant yi def na ko ci kanam sëñ Touba ci wàllu tërbiyewu ak jaamu yàlla ba malaaykatul mu kor bëgg a mel ni moom bëgg dendeek moom bëgg a mel ni moom loolu sëñ Touba rek moo ko man waaw nga xam ne am na lu xewoon ci biir njaareem ñu naan lii dañ ko toxalee fii ñii ñee ko jël ñu naan ñee ko jël ñu koy jeeñante sëriñ Touba ni man yàlla xamal na ma maag sant it bokkuñu ci xam nga loolu daraja la daraja la tey nag lim nekkee woon ci kër sëñ bi kooko fi nekk la woon léegi mu lànk dama koy méngale te tëj tëj rek jox la kàddu gi dama koy méngaleeg sëriñ Siré Lo Serigne Siré Lo yéen xamoon ngeen ni mu bëree xam-xam laata muy gis sëñ bi ci sëriñ bi sëriñ bi jógee ci géej gi jaar kër jaar këram dafa weer bi bi nga xamee ne koor gi am na juróomi fan la wàcc sànnoo si bi mu wàccee Sànnoosi am ko dajeek moom sëñ bi ne ko ana kër sëñ Sira Lo Naasir Lo Naasir diin Lo mu ne ko sëñ Sira day këram daa ràpp sëñ bi ne ko bu kër ga ràppee it xol ba ràpp am ko daw ne ko ah sëñ Siré ki ma gis mu yéeg ci fas mbooloo topp ko kooku sëñ Xaadim rek lay doon sëñ Siré daal di génn dajeek sëriñ bi nuyoo moom sukk nuyoo moom sëñ bi ne ko séréloo foo may dalal sëñ séré na gees mbooloo mi ne foo may dalal sëñ Tuubaa ji fii ba ba ñu dugg aljanna ku fi gis la ko fi dàq na ma ko wax waaw na ma ko wax nga xam ne sëriñ bi moo wax ne maag sayid mi tuumay tey jii ak ëllëg gënjëm du dal suñ ko mukk tuumay tey jii ak ëllëg gënjëm ndax sëñ Tuubaa bu taxawee ba ba li ñuy wax ak càcc amul ñu di ko jiiñante sëñ bi ne yàlla xamal na maag sayid moom jëluñu ko <laughs> xam nga loolu kii man la euh, nga xam ne tënk bi nga xam ne moom lay tënk rek ci mu na bi may def diggante sëriñ sayid ak sëñ siré ndax sëñ siré daa bari woon xam-xam kawee yàlla yóbbu ko ci martaba yi nga ko yóbbu sëñ Mbàkke bu sa seereel ko yaatu xam-xam seereel ko bëri tag teggin sëñ bi it di ko liggéeyloo ci ay xéememteef yu wuute lu mel ni toppatoo jàkk ji fi ne sëñ Siré moo daan bale jàkk ji sama classe bi tey ku leen jëloon di leen bale loo jàkk ji da ngeen def la leen tardeel sëñ Siré loo moo doon bale jàkk ji wut di fas yi moo ko doon toppatoo ñaareel ba it mooy jox ndogu ñu woor bu sëñ bi day wax kàddu yoo xam ne xëy na mën naa suufe mu di ko jottali te léegi àgg nañ ci ne borom xam-xam wër jottali Tiwaawoon ki ko doon jottali rawu ko kooku li ma gën a neex ci moom buy jottali El Hadj Abdou bu aaye bi daanoo El Hadj Abdou Aziz du ci jaaraat li yahlaka man alika an bayina wa yaxya man xayya an bayina mas naa dégg mu firee ko lu neex El Hadj Abdou Aziz dana li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man xayya an bayina mu ko mu ne ko baax dana la dana la dolleeg baax ngay baax di dem ku nar bon dana la dolleeg bon ngay di bon di ànd bon di wéy xam nga xam nga kooku loolu borom xam-xam ko man te itam boo ko doon def ñu ñu la ne la waaw borom xam-xam nan lay jottalee ab jaayin te boroom xam-xam moo war a jottali ndax bu jottalee mu jot te dana sell moo tax nag sëñ bu Buso tënku ci ay bayit yu gàtt ne siré manta zakka wa atala siré ku sell la waaye ku kawe la bil ilmi wal adabil kathir ku am xam-xam la ay teggin yu baree bari man lil masajidi wa sufu fi was siqaayati wal futuur jàkk yi la daan ak defar sàpp yi ak di bëgg jox nit ñuy naan ak di jox nit ñuy ndogu daal ne wal baaba fi fattin wa fi xalqin wa israajil munir tëj bunt yi ak tijji ak tàllamp yi gisagu leen fi sax ñu toog ne ko sëñ ne ko jàngal bi dog de lii lay lii rek lay aw man yu marridu za danan aw man yu xassiri za zubur lim daan def mooy fekk ku tawat mu di ko ragal li ñaan ragal bokk na ci li tax a wuute ja juma di ragal ku tawat ragal mooy lan di ko toppatoo di ko jox ay garabam loolu bu amee te ak gisuñu keneen ku ko mën a def ku yow mën nañ laa may nga tardé juma wala fekk koo xam ne tuskore daanaka ma ngay yuuxu ca sawara mu fóot ko moom set wicc aw man yuballiquna kalaama say xibbi sawtil jahir moo daan jottali sëriñ bi an baytihi in sihta aw wala fiyatan aw loxotal kajoor bu sëñ bi waxee bayit mu jaar ci bayit wa wala bu sëñ bi waxee olof mu jaar ci olof yi bal kaana xaqan uddatan li sayxi fi julli umur daal la sëñ si daal préparation la ci sëriñ bi ci lépp boo gisee ma lënkale ko ñoom ñaar gis nga ñaari ñi niñ meloon sëñ Saïd ni mu bokk sëñ bi ak ni mu baaxee sira sëñ siraloo gis nga ni mu baaxee ak ni mu bëree xam-xam ak ni mu sellee sëñ bi di leen jëfloo jëf yooyu ngir ñu mën a jariñu te ak liñ indaale ci sëñ bi kon képp war ku ne war na cee jàngale kon sëñ Mbàkke Abdourahmane li mu doon traité muy wujubu taati wulaatil umur kon ma des ni ko jàngee ci Serigne Saïd ma des ni ko jàngee ci Serigne Siré allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim mu def lu am solo trop mooy euh, lenn ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ bi nekkoon ak moom mu gaaral ñu lenn ci seen ak dund ndax loolu dafa nekk patrimoine boo xam ne ñun waxtu nekk war nañu di ko fàttali ndax ñu bëri ci ñun li ñuy jàpp rek mooy ñooñu dañu leen di dégg jàpp ne li ñu am dañoo xëy xëy am ko waaye fekk dafa am fu ñu jaar am nañu liggéey ba tax ñu am ko kon danay baax ci jotaay yu mel nii ñuy fàttali ñooñu su ko defee ngir ñu man di ci roy ba bu fekkee ne lañ am amuñ ko it ñi mën a ñi mën ci am dara kon ñu ngi lay sant ci euh, fàttali yooyu ci ñett ñi nga xam ne ñoom nga gaaral di ñaan suñu borom mu yokk ko bi te yokku fan wi ak wér gi xam naa kon dañuy jàll ci liggéey bi rek comme ni ñu ko waxee woon ci tàmbalikaay bi mooy ginnaaw bi nga xamee ne am nañ ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën koo may ak wér ba lépp lu mu naal ci liggéeyal ko diine liggéeyal ko Cheikh Ahmadul Khadim sunu borom defal ko ci lu kawe jortam ci la mbokk yi woote woon bis bii nga xam ne moom la defaral seen maam. di suñu maam Serigne moor Assa Diatara ba ñu ko defee mbokk yi ak xarit yi ak am na jàmb yi ak dëkkandoo yi ñëpp wuy si nañ xëy na comme ni ko olof di waxe ku lim da ngay juum waaye nag xëy na du am benn benn yoo xam ne danañ ko ci settee tudd seeni tur ñu yóbbaale ñu ci des ñëpp bokk na ci ñi nga xam ne teew nañ ci bis bi mooy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Ismaïla Mbacke di xalifab Maam Mor Diarra di kilifa dëkk bi ndaka noonu it njabootuk Mamor Jaara ñu ci bëree bëri ci kër yi teew nañ fi ànd ak seeni seeni seeni njaboot bokk na ci ñu ci teew ci bis bi sëriñ Siidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ak sëriñ Cheikh Mbàkke wala sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke Daaru Salaam naka sëriñ Cheikh Abdou ak sëriñ Sam Mbàkke xalifab sëriñ Mbàkke Asu ak sëriñ Sidi xalifab sëriñ Hamid Mbàkke ak sëriñ Jiiri Mbàkke xalifab sëriñ Modou Boussa Dieng ak sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Alxaaji Baara Mbàkke ak sëriñ Galas Mbàkke Kalto moom sëriñ Alxaaji Baara Mbàkke xam naa ngir bañ a uh, gàtt guddal dañuy wéy ci kàddu yi nga xam ne moom lañuy joxe su ko defee danañ mottali ñi nga xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne teew nañ ci jataay bi kon dañ ci teg kàddu sëriñ Abdou Ahad Ndiaye nga xam ne danañu gaaral euh, délégation bi nga xam ne ñoo jugee ci njabootuk seeni Sayid Mbàkke su ko defee mu euh, am kàddu yum ci yëkkati ñu daal di jàll ci liggéey bi kon sëriñ Abdou Ahad bismillah de production GP Gabon Production Avec une équipe dynamique, un personnel professionnel, des lots de matériel de la nouvelle génération.